asalaamaaleykum Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax soxna naata nuyu sama naataango yi ma bokkal plateau bi nuyu mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média. aywa ñu euh, dooree ko ak l'observateur. ñu dooree ak l'observateur yéen kaay wile mbirum passeport diplomatique yi nag jàppal ne pënd yu réegul ba tey mi ngi ñuy wax lettre bi ñi nga xam ne na nag scanné nañu ko bu njiit bu réew bu Sénégal ak itam requête wile nga xam ne nag directeur général wile daal na koy def ci wàll wi ci wet ga itam soxna yile di fësal li nga xam ne nag moom moo di seen ak jooyu xol ci bundu xataal woo xamante ni dañ koy dund euh, mu ñeel wàllu euh, violence euh, mu mel ne nag enquête dikkaat na ba tey ci lu ñeel mbirum passeport diplomatique yi ñii lee nga xam ne nag amuñu benn yelleef ci lu ñeel réew bu Sénégal daal di leen di dippee non patriote ñu àddu ci leneen mbirum TER bi xam ngeen ne daañ ko daloo ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre yi nga xam ne nag moom la ñu nekk la mu xëyee bokk na ci saxaar gaa ngay corne jubali ca gaar wa naata mhm. Soleil dikkaat ba tey eh, ci ñaar fukki fan ginnaaw bi eh, ki nga xam ne nag moom moo fi nekk eh, njëkk njiit bu réew moom président Senghor nekkoon na fi libération dikkaat ba tey ci lu ñeel mbirum passeport diplomatique yi wile yoon nag daal dina koy càmbar bu baax a baax sëgg itam ci wile ñenn ci ay tur yoo xamante ni daañ ko gën a càmbar ah, ci ñaareelu ah, pàcc wi tribune dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag ah, moom moo di wàllu TER bi ñoom nag jàppee nañ ko eh, lépp lu soxal wàllum yàqum koppar Sonataa mm. Walf Quotidien dikkaat ba tey ci ginnaaw bi vingt ans après ki nga xam ne nag moom moo fi nekkoon njiit bu réew bu Sénégal moom président Senghor ana lan lañ ko deseel Les Échos dikkaat ba tey ci lu ñeel mbirum Sweet Beauty xam nga ne lu ni mel nag moom moo dooroon coowal Ousmane Sonko ak itam Adji Sarr ki nga xam ne moom moo di patron bi daal nañ koy jébbal li nga xam ne nag moom moo di passeport am waaye samp nañ ba tey aw laaj lan moo ci wàllee fukk ki nga xam ne moom moo di Sonko weneen ak wet ga ki nga xam ne moom moo di uh, Doudou wàdd joxoñ na uh, loxo ya di wax lépp lu ñeel wàllu scandale mel na nag kuy joxe li nga xam ne moom moo di aw cour magistral uh, bés bi le jour dikkaat ba tey ci lépp lu euh, ñeel ki nga xam ne euh, moom moo di euh, nataaluk dikko waxaat itam lu mel ni wàllu serment ma ngay wax ci lu soxal wala radicalisation yu ndaw ñi ak itam responsabilité yu gouvernant yi daañ dikkaat ba tey ak moom laas dikkaat ba tey ci ki nga xam ne moom moo di Léopold Sédar Senghor nit ka mu doonoon maanaam humaniste ak itam intégral wi nga xam ne nag doonoon na ko la mu def itam ci lépp lu soxal languk politique bi fii ci réew bu Sénégal Vox Pop dikkaat ba tey ci coowal université yi nga xam ne nag boobaak léegi mbiccoo mbaaloo bi bëri woon na ci ki nga xam ne moom lañ dénk wàllu njàng mi kaw mi moom Cheikh Omar Anne daal na rek génn ci tekk tekkaaral wa nga xam ne nag nekkoon na ko sursu a dikkaat ba tey ci lu ñeel wàllu passeport diplomatique yi jàppal ne nag li nga xam ne moom moo di gendarmerie yi daal na ci suuf yoxoom Sud Quotidien dikkat ba tey ci wile nag da ko gën faram-fàcce li nga xam ne nag moom moo di ñaar fukki at ginnaaw bi njiit bu réew ba woon euh, daañ ko gën a càmbar ci ñaareelu pàcc wi record di kat ba tey ci Angleterre Tottenham Liverpool maanaam ndam demul ndam dikkul ñaari bal fu ne la daal di euh, dikkee muy wax itam ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di les Spurs jamono yi nag baare nañ Sadio Mané ak i eh, ñoñam stade ba tey dikkaat eh, ci eh, match woowee Liverpool nga xam ne nag ni ki démb dafa démboo mu mel ni nag Chelsea jamono yi nag mel na ni ku mer sunu làmb dikkaat ba tey ci càppa colu wi ki nga xam ne nag moom moo di Boy Niang 2 digganteem ak ki nga xam ne moom moo di Tapha Tine bu Bawol borom takk ci rip mu mel ni nag song na ko bu baax a baax ñenn ci ñoo xamante ni seen taxawaay doonoon lu kenn dootul natable ci li nga xam ne nag moom moo di làmb ji ko ku ci mel ni Zallo ñoom Ngagne Ndiaye ñoom ñëpp daal nañ ci addu euh, la xamle mu di euh, moom Tapha dafa sëpp woon bu baax a baax ki nga xam ne nag euh, moom moo di Boy Niang 2 ginnaaw bi mu amee ndam ci kawam soxna naata daañu ko gën a faram-fàccee ci ñaareelu pàcc yi. incha allah Cheikh laataa ngay dem dañ ñuy indilaatal l'observateur ak tey li mu xëyee mu mel ni journaux yu bëri sax moom lañ xëyee tey jile muy mbirum passeport diplomatique trafic bi mu mel ni. Mhm. yëf yi